y li ñu retenir ñun membre fondateur bu MAKI 2012 qui sont moins que Macky 2012 nekkul le gouvernement Et lolu amul lenn lu ko mën justifier te koy bu a baaxa ni euh, bu ni gouvernement mais amna ay parti yo xamni ne gouvernement te critère yi nga critère légitimité critère am mbooloo critère am compétence bu fekké critères yoy lañu lañu lañu ñu mais amna ay parti Macky 2012 yo xam ay leader Macky 2012 yo xamante lu mais ñom ñoo gëna a ñoo ëpp doolé fouf ay ay parti yo xam ne mosu ñoo quitté gouvernement bi je pense que lool dañ ko wara xolat bu baaxa baaxa baax parce que nekkul lu ñuy nangu te it duñu bank suñu loxo tok diko sétane cette fois-ci na opinion bi yëpp xam. Benno Bokk Yaakaar xam askan bi ba xam ni waa Macky 2012 dañ taxaw taxaw aussi pour ñu jox ñu suñu suñu suñu ak lu mu ci laaj dinañ ko def mais lii mënut a continuer parce que nag mënuñu nekk ci eh, coalition boo xamante ne bii su amul woon kii di eh, candidat Macky Sall du nekk du mas a nekk daanaka eh, ci kattanu yàlla du mas a nekk président de la république coalition boobu ñu ko dëggaatee di ko fal naa di ko di ko di ah position yi ñu yoroon yëpp lu ci ëpp nangu nañ ko bu ñu gouvernement duñ ko duñu de duñ ci boole 2012 ñu noppi rek noppi googu nag laa wax ni la nekk te lii dañ ko corriger ci nii wala ci ci ndax kenn mënul comprendre ban logique lañuy la pour que Euh, sa nitu démb nga teg leen na la indi sa nitu sa sa tey ak euh, tey jii si suba mais nga nga nga nga dugal leen ci ci ci gouvernement bi bàyyi sa nitu démb loolu moom duñ ko il faut que ñëpp xam ko nekkul lu ñu lu ñu lu ñu naqaru la non seulement mais que duñ ko nangu duñ duñ ko nangu tey duñ ko nangu te it nag duñu croiser les bras toog de seetaan mais ñu lay ñu lay ñu lay rey te fekk ngay dund.